waaw sant yàlla bu baax a li ma wax léegi rek dama fi ñëw ñaari affaire mooy Ama wala newu fi ma nekkul ko fi ànd ak waa Pikine yëpp beneen bi mooy sama yaay bu yaay Ama ma ngi koy ñaanal mel daba yàlla guddal fanam dama ma woo booy yaa Ama newu fi yow yaa fi bëgg naa nga ñëw ne ko yaay yow loo wax rek loolu lay def yaay suñu waajur moo Kumba Baldé ak ñëpp ñu ànd ak ñëpp ñu dem parce que na amul solo waaw léegi du rafet rek rafet ma ñëw ànd xam nga Pikine moom làmb ñoo yem dafa bëri coow mais bu lu problème coow yi moo bëri rek mais ñu ñëpp ay frère lañ làmb amul soro dañuy dem suñu carrière bu jeexee ñeneen ñëw xam nga dañ ko rafetal te xam naa ñu ci yoon bi incha di ñaan dafa ba pare yéen ngeen bàyyi ñu tamit yéen site internet yéen parce que yéen business bi Pikine la nekk business bi Pikine la nekk mais dafa leen di jàmm rek yàlla yàlla def Pikine jàmm ñëpp ñëw fan at na mu solo yéen defar yéen a yàq loolu moo am jàmm lañ seeg dara newu fa jàmm nekk donc dañuy ñaan ama seen suñu mag dëgg bi yàlla may ko ndam Pokola yàlla may ko ndam wañ Ndaga Thiam yàlla may ko ndam Ama Baldé aussi yàlla may ko ndam ñoom ñëpp yàlla dafa leen ndam parce que àdduna solo dañu fexe lépp rafet doo gis dafay jeex nañ ko naajal bu baax a baax incha allah. mais diggante Boy sama yaay la waaw sama yaay la moom sama. xam loo xam ne démb la boobu ñun jotee gudd ku ma Baldé ak sama yaay ak sama papa bel dogal yaa ngi dégg bari na ak sunu papa yàlla ko yàlla xalaat gën a as mbaay donc loolu démb la deret bi dafa duggante daal famille la daal donc maa ngi koy ñaanal jàmm ak diina Baldé paane aussi mag la. nee naa ko yow boo ñu dóoree mbéj sax nee na yow suñu grand nga amul benn problème at na mu soro quoi ñëpp ñoo far incha allah. Eh, eh, am lu muy représenté biir moo jël Sa a dajale 5 mars a. le 5 mai waaw le 5 mai. waaye rek loolu moom Eumeu xam na nu demee parce que dégg naa ko mu wax ko Eumeu Sène nee na combat Pikine da ko soxla te wax na dëgg quoi Pikine dafa soxla ndam te suñu grand xam ne lépp ñu ngi ci ginnaaw di ko ñaanal ndam moo xam ne nu mu demee du ngaaga eh, donc ñaari fan. ñu koy jox Sa doom delloo fa loxo ñu xam nañ miin nañ bagaat yi. miin nañ bagaat yi amul problème. day eh, jaar day jaar ama moo ma ko joxoon kon mi moom day ñëw rek def na mu dem. <laughs> Abel moom bu jeexee jeex na mag Cheikh ne aussi am na combat ñu koy ñaanal ndam. combat géwél la de. combat géwél la yàlla yàlla def ñam waaw ya danoo boole géwél ci seen biir kon loolu mën ta mu ne. mosu leen a bëre. mosu leen a bëre Kébémer. Kébémer waaw. combat bu métti la ñu bëre. yàlla dogal mu daan ma. waaw revanche laay bëre. Dakar arène nationale. arène nationale. booy ñaa amul la. waaw booy ñaa di fay di Bombardier di ma andi. non combat bu rëy lay doon incha allahu ren. wax baaxul soreetul. nan bàyyi ba la cinq incha allahu ren ma ñëw ubbi ñu am ma seen incha allah. waaw man maa ngi. lii ko xam xam ne xeex kat la. ku xam seex la xam ne xeex kat la. waaw mais kon kon dina neex. ndax ku tee ne ko xam-xam ne xeexkat la jili ko xam-xam ne xeexkat la amee kon dana neex incha allah rabi dana neex. waaw mais dana neex incha allah. waaw yow man jili may du xeexkat sax jili may xeex naa ñu ko gën a biti téeméeri jënd yoon man sama combat ku ne xam ne man ta sedd amul ci luy baax la fenn man ta sedd incha allah rabi. waaw mais man du ma dégg see baax na ba bis incha allah bala sey bala sey grandeur li boo ñaa def li boo ñaa def mel nii Pikine musta am geste bu rafetee nii maa wax de waaw ndax drapeau Ama Baldé man nee naa la ñaan ñëpp